أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين لقن لساني واحللا منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبدا واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen balu ak te di leen baal di ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñu bëgg a dikkaat ak yéen rek comme ni ñu ko baaxoo di defee ak yéen ci ay bis bu ne di ànd ak yéen ci bind ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi mu tuddee nahju xabail xaaj nga xam ne suñu bind bi mujj ñi ngi taxawoon ci ki nga xam ne foofu lay sàkkoo ci cem si ci nit ki suy jëflante ak ci ku ko mag mu fexey ba di seq ak di ko jëflante ak moom ci li nga xam ne mooy ay teggin waaye saa boo xamee ne ku ko mag béccingal na ko wala mu jànni ko na ko jiima dogal ngànt rek waaye bum bum ca mer waaye bum ca fëkkante ak moom bum ca andi ak moom yenn jafe-jafe na ko jox cëru mag ba rek te warmaal ko te muñ loolee nga xam ne moom la ko def te it muy ànd ak moom ci ay teggiin teggiini xool saa bu koy xool na fexey ba bum jël ay bëtam rek teg ko ko fu mu aw mu teg ko ko waaye na fexey di wàcc ay bëtam fu mu toll waaye na fexey di damm ab gisam fu mu toll ndax loolu suñu boroom bi subhanahu wa taala moo ñu ko digal loolu moom lay saraamu ne yaani li mu namm ci wax jooju nga xam ne moo weesu anna min al adabi naka bokk na ci ay teggiin alxasani yadi aji rafet an la tadxaka nga bañ a ree abadan faw bi xadrati man ci teewaayu ka nga xam ne huwa moom akbaru dana gën a mag min ka ci yow maanaam dana la féete ak mag illaa tabassuman nare nga muuñ nee na li mu lay digal de te moo di ay tegginu rafet mooy su fekkee ne toog nga ak koo xam ne moo la féete ak mag toog nga ak koo xam ne moo la mag nee na bul ree ba sa say ree di am kàddu waaye saa boo xamee ne gis nga loo xam ne jar naa ree sax na nga muuñ waaye bul ree ba ree di am kàddu ndax nee na loolu dafa dàqonte ak ay teggin ne wa an la tastar sila ak nga bañ a bàyyandiku fil kalaami te wax ja maahu ànd ak moom illa an yatlu ba ba mu sàkku zalika loolu min ko ci yow nee na bul bàyyandiku itam ca wax ja maanaam nekk ak moom di wax bu waxee baat nga wax baat bu waxee nga wax nee na bul def loolu ndax loolu bokkut ci ay teggin nee na boo toogee ak moom bul bàyyandiku ci ay wax di wax rek continue déedéet nee na loolu dafa dàqonte ak ay teggin waaye na nga téye sa gémmiñ noppi ba mu sàkku ci yow nga wax saa boo xamee ne sàkku na ci yow nga wax nee na bu boobaa nag nga doog a am ndigalul wax moo tax mu ne bul wax mukk li fekk sàkku ko ci yow te saa boo xamee ne sàkku na ko ci yow nee na fatata kallama na nga wax maahu ànd ak moom ala xadrima ca kem la nga xam ne talaba sàkku na ko fa innahu naka loolu al adabu mooy ay teggin fi xaqihi ca ca dëgg-dëgg nee na day saa boo xamee ne nag sàkku na ci yow nga wax bu boobaa mën ngaa wax kem la mu sàkku ci yow saa boo xamee ne la mu sàkku ci yow jeex na nga jàppaat sa bopp waaye téyaat saw làmmiñ bañ a bari ay wax bul nekk koo xam ne day wax rek di dem di wax rek di wax rek te li muy wax daanaka amul benn njariñ rawatina nag nga toog a koo xam ne moom moo la féete ak mag ndax toog a ku la féete ak mag di wax di wax rek bu boobaa wax bi da koy tàmbal te loola mën naa dàqonte ak li nga xam ne mooy ay teggin moo tax mu ne loolu kon dëgg-dëgg mooy ay teggin ana xiina isin ca waxtu woowee wa isa jafaaka ndéem béccingal na la faxtamil na nga yenu maanaam na nga muñ jafwatahu ak béccingalam wa'tazir te nga dog ngant ilayhi jëm ca moom wala tuwaajihu bul ko jàkkaarloo ak moom bi basarika ci sa gis wala tukassir bul bari an nazara xool ilayhi jëm ca moom fa zalika loola laysa bi adabi bokkut ci ay teggin nee na itam na nga fexey ba saa boo xamee ne jànni na la wala mu wax la loo xam ne neexu la na nga ko muñ waaye bul fa nekk mukk di fuloo ak moom wala ngay waxante ak moom loo xam ne bokkut ci ay teggin nee na saa bu la jànnee daal na nga fexey ba dogal ko ngànt rek waaye bul toog ak moom mukk di ko di jànnente ak moom wala ngay waxante ak moom wax yoo xam ne wax ju ñàkk kersa la wax ju ñàkk teggin la waaye soo toogee ak moom na nga fexey bay damm sab gis waaye bul jël say bët rek teg ko ci moom ndax loolu bokkut ci li nga xam ne mooy ay teggin nee na wa in xaawalta ndeem sàkku nga alxiyaama jug minal majlisi tukkee ca jotaay ba fa xum na nga jug ala labaaxatin ci ak ñaw waxtal xiyaam yi waxtu wa nga xam ne ca nga nam ma juge nee na saa boo xamee ne toog nga ci ab jotaay toog ak mbooloo dem ba nam ma jug dem ba sàkkoo jug ñana bu boobaa boo jug na nga jug ci ak ñaw na nga jug ci ak muus na nga jug ci ak yeewu waaye na nga jug ci am xel na nga jug ci am xel saa boo xamee ne bëgg ngaa jóge ci jotaay boo xam ne bokk nga ci ak ay nit toog ak ñoom wala takun bul nekk min sàmma ca waxtu woowee nga bëgg a jóge zaria turaabi di aji sutti suuf ala wujuhihim ca seen xar xanam ya li xul fihi ngir ak wuuteem ak sawaab ab ab yo ab ak njub nee na bul nekk mukk koo xam ne saa boo toogee ci mbooloo ba bëgg a jug rek soo jugee sa yére yëpp rek suuf sa ca neen nga xëpp ko ci seen kanam yi nee na lool di dafa wuute ak njub lool dafa wuute ak ay teggin lool kon looloo tax mu lay digal ne la saa boo demee bu bëgg a jug na nga jug ci ak ñaw waaye na nga jug ci ak yeew na nga jug ci ak muus ngir nga fexey ba sàmmonte ak ay teggiini bañ leen a teg lenn lu leen bañ leen a teg lenn loo xam ne daf leen a métti waaye bañ leen a teg lenn loo xam ne daf leen a naqari nee na wa in xaddarta ndeem attan nga laatakun bul nekk za naw min di boroomi nelaw bay na zawi yaqzatin ci diggante way yeewu fil xaw mi ca nit ña nee na su fekkee ne man nga ko de bul nekk di aji nelaw maanaam bul toog ci ab jataay mukk di nelaw ci seen biir ñoo xam ne dañoo toog ñoom ñëpp di waxtaan toog ñoom ñëpp nekk ci seen ab réunion masalan nga toog dugg ci seen biir tëdd di nelaw nee na soo ko mënee de bul ko def mukk fa innahu naka lool de laysa min al aada bi bokkut ci ay teggiin is ngir fiihi nekk na ca maa fiihi la ca nekk minal aytaa bi ci yeddaange dana su fekkee ne man nga ko de bul nekk ci biir nit ñi mukk nit ñi toog nga tëdd ci seen biir di nelaw nit ñi toog di waxtaan nga tëdd ci seen biir di nelaw ndax loolu dafa dàqonte ak ay teggi te am na yu bëree bëri yoo xam ne mën nañ la cee yedde yoo xam ne mën naa xew ci sa ginnaaw te doo ko yëg looloo tax mu lay digal nga bañ di nelaw ci biir nit ñoo xam ne dañoo toog ñoom ñëpp kenn nelawu ci nga dugg ci seen biir di nelaw kon loolu nee na nga ko moytandiku bu baax a baax a baax kon daal foofu nee na na nga fexey ba sàmmonte ak li nga xam ne mooy ab jataay saa boo ci bëggee bàyyi ko saa boo ci bëggee jugee na nga jug ci ak ñaw waaye bul jug mukk di leen xëpp suuf ndax loolu dafa wuute ak ay teggin dafa wuute ak njub waaye na nga fexe ba soo toogee ci ab jotaay bul fa nelaw mukk ngir ne boo fa nelawee man naa am luñ lay yedde xew ci sa ginnaaw te bu boobaa doo ko yëpp moo tax mu ne yaani li mu jublu ci mu wax anna minal adabi naka bokk na ci ay teggiin alxasani yadi aji rafet an tax tarisa ngay wattandiku min an tazriya ci ngay xëpp aturaba suuf ala wujuhil jullaasi ci xar xanami way toog ña isa arata ndeem namm nga alxiyaama jub minal majlisi tukkee ca jataay ba ne na bokk na ci ay tegginde mooy na ngay wattandiku di xëpp suuf ci xarxanami way toog ña saa boo toogee ci ab jataay ba namm jub na nga fexe ba sàmmonte ak teggin yooyu na nga fexe ba wattandiku di xëpp suuf ci xarxanami ña nga xam ne ñooy way toog ña moo tax mu ne fa in arata ndeem namm nga zalika loolee te mooy jug fa xum na nga jug bi la baaxatin ci ak ñaw wala baaxatu ak ñaw kal xazaaxati mi ngi mel ni baatub xazaaxa mooy ñaw ba tey wasnan ci màndaxe wa maanan ak maana mooy nuñ koy firé moo tax mu ne ñene so boo xamee ne bëgg ngaa jug na nga jug ci ak ñaw mu ne la la baaxa boobu mu la wax nag moo xazaaxa ñoo bokk lenn du ñuy firi waaye ñoo tolloo li nga xam ne mooy wës na mooy am nattuwaay ñoo tolloo baat yi nga xam ne moo nekk ci al la baaxa baatum la baaxa baat yu toll noonu rek moo nekk ci baatu xazaaxa moo tax mu ne walaata murra bu romb ala wujuhil jullaasi ya kanami way toog ña wa minal adabi bokk na ci ay teggin am laata naama nga bañ a nelaw baynal mutayaqizina ci biir way yeew in istataata ndeem man nga ko fa innahu naka lool de laysa minal adabi bokkut ci ay teggin is ngir xat taxruju amaana mu génn min ka ci yow riixun ngelaw wala tashur te doo yëg bihi ci moom li anna al ayna ndaxte bët de wika ut duburi mooy takkuwaayu suuf nee na na nga fexe ba saa bu nit ñi toogee bul di romb ci seen kanam di dem ak a dikk di romb ci seen kanam di dem ak a dikk wala nga dem ba bëgg a jug yëlëb say yëre rek suuf sépp sutiku seeni xar-xanam nee na lool de nanga ko moytandiku bu baax ndax sam bokkut ak ay teggin dafa wuute ak ay teggin lool lool lool nee na nag bokkut ci ay teggin nit ngay nelaw ci biir ñoo xam ne kenn nelawu ci ñoom ñëpp dañoo toog di xoole nga nga yeewu ndax amaana nga def loo xam ne doo ko yëg doo ko yëg amaana nga génne amaana am lu génne ci yow loo xam ne doo ko yëg lu ci mel ni ngelawal su fekkee ne man nga ko kon bul nelaw ci biir ay nit ngir ne saa bu fekkee ne yaa ngi xool man nga mucc ci yooyu waaye saa boo nelawee yëgatoo dara la nga xam ne mooy xew ci sa ginnaaw mënoo koo xam loola tax mu lay digal nga bañ di nelaw ci biir mbooloo ndax bët mooy takkuwaayu suuf maanaam nit ki saa boo xamee ne mi ngi xool mi ngi yeewu di xool man naa dem ba dara bëgg koo dikkal sax bu nekkan ci digg mbooloo man naa jug ndànk génn dem def la nga xam ne moom la aajowoo daal di ñëwaat toog ci biir mbooloo mi waaye su fekkee ne nag dafa nekk ci ay nelaw bu boobaa loolee dina ko dana ko jafe bu baax a baax a baax a baax mu ne waxalam xana xamal bi annal xirsa ndaka xër lit taami ci aw ñam min mujibaatil aari bokk na ci liy waral yeddaange wal malaami ak yeddaange ne na ma nga xam ne xër ci aw ñam de bokk na ci li nga xam ne day waral yeddaange ne nit ki su xëree ci aw ñam fu mu toll di lekk rek fu mu toll di lekk loolu mën na koo jural yeddaange li mu koy juralee yeddaange mooy mën na koo jural li nga xam ne mooy fër mën na koo jural li nga xam ne mooy fër waaye mën na koo jural li nga xam ne lekk gu bare mën naa dem ba feebar nit ki te loolu lépp yeddaange rek lay jural borom mu ne waman yoo àllëf képp koo xam ne dafa aj bi taami ci aw ñam alhimma yitteem wal farji ak pay foofu woo moom jaamiul masin moom mooy aji dajale mbonteef yëpp mooy aji dajale li nga xam ne mooy lu ñaaw lépp ne na képp koo xam ne dafa jël yitteem yëpp day jël yitteem yittey àddunaam yëpp rek def ko ci diggante lekk ak pay maanaam bànneexu bakkan rek nena bu boobaa kooke na xam ne lépp luy lu bon rek moom moo ko moo ko dajale kon nit ki war naa fexey ba di lekk kem li nga xam ne moom la soxla li sëriñ bi wax ne maa yuqiimu sulba lu la téye ba nga man di jaamu yàlla waaye bul ci xéeru di ko lekk bay yàq wala yu demee noonu yooyu yëpp dañ ko war a moytandiku waaye na nga fexe ba sa li nga xam ne mooy pay tamit nga moytandiku bu baax a baax ndax bànneex bi nga xam ne moo ci nekk nit ki war na ko moytandiku bu baax a baax kon nit ki saa bu boolee yooyu dañuy jàpp ne lépp luy lu bon rek dajale na ko moo tax mu ne xas bu ko na la doy min bu ca ñam wa maa la nga xam ne yu xiimu dana dëgëral asulba mooy taxawaay ba wala ndigg la taxawiyan nga dëgërlu li kay tutiyan ngir nga topp arab ba buur ba wax zar na nga moytandiku mina sharahi ci fuqale kulla dahri ci jëpp jamono fa innahu naka moom mabda'u kulli sharrin mooy tàmbaliwaayu bépp mbonteef mooy tàmbaliwaayu lépp loo xam ne lu bon la kon nee na war na laa doy ci ñam bi nga xam ne moom ngay lekk rek li nga xam ne moom ngay dëgërloo li nga xam ne moom ngay lekk ba man cee taxaw ngir jaamu sa borom waaye nee na na nga moytandiku li nga xam ne mooy fuqale ndax fuqale kat mooy tàmbaliwaayu bépp mbonteef mooy tàmbaliwaayu bépp ñaawteef kon nit ki war naa fexey bay daw ñaar yooyu nga xam ne lépp loo xam ne mooy lu bon ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko sos kon nit ki war nay sàmmonte teggin yooyu yëpp ngir lan ngir ak dundam mën a jàkk waaye ngir mu mën a sàmmonte ak li nga xam ne moom la ko lislaam digal waaye li nga xam ne moo dëppoo ak ay ay teggin kon ñu ngi tuub bu baax tey jéggulu di wax ni in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh